salaamaaleykum Sénégal ñu ngi fii ci pikin Pikine Icotaf sandika tey nag seet si alaaji Ablaye Naar di la jox sa wàccuwaay di la jaale sa rakk ju baax ji alaaji Thione Seck ñoo ko bokk di la ko jaale àdduna di la ko jaale mm-hmm. waa seen direct di la ko jaale bu baax a baax mm-hmm. àdduna wërngël këpp mm-hmm. tey ñu am naqar goo xam ni àdduna bi rek rawatina pikin am ko tey ñu ñëw ci kër gi nga xam ni mooy këru cosaan gi. Mhm. ñu ngi lay nuyu Ablaye Naar. maa ngi lay fay Abdou Aziz El Hadj maa ngi lay fay Abdou Aziz ah di la jox sa wàccuwaay di la wax ne li nga may wax yëpp jàll gi yëpp ñoo ko bokk ndax yow ci kër gi nga bokk mbokk nga doom nga jarbaat nga lépp nga ci kër gi. kontaan ci ñëw bi nga ñëw fii may ma opportunité moo wax ci sama rakk ji fi jógee nga xam ne ñëpp. Sénégal yëpp jooy nañ ko waxuma Sénégal mais monde bi yëpp jooy nañ ko te boo amee ñu loo ñu loo jooyal defe naa ne dootoo jooy. dootoo jooy voilà mais bi nga xëyee rek. Mhm. surprise boobu dal sa kaw naka la la def. non moom kay <laughs> bi ma waali wooyee le matin waali moom a woo ne ma papa foo nekk ma ni ko maa ngi nii sama kër mu ne ma jëlal taxi léegi na fekk ma hôpital fan mu ne ko mbaa jàmm mu ne ma du jàmm de mu ne ko waaye bul ma fonto ah man duma sa morom moom waali moo la woo moo ma woo donc bu fonto duma sa morom mu ne ma daal papa mu ne ah ko saraka fi jóge léegi mu mel ni dañ ma dóor yat nag la ilaha illallah foofu moom taxawatuma waaw maa ngi ko dégg muy wax mais xamatuma sax lu muy wax déggatuma voilà parce que booba temps xam nga yëf fi effet de surprise la. surprise parce que kenn xalaatu ko. hôpital fan la génne mm, non suma assistance. bon fa la génne àdduna. fa la fa lañ ko entré fa la génne àddina ñu ko hôpital fan parce que foofu amul morgue. ñaata fan la fa def avant moo non le vendredi la lañ ko yóbbu ci mhm. le samedi la fa def rek dimanche ci fajar gi mu gaañu. mu gaañu. une journée et demie la à peu près une journée et demie la une journée donc. Euh, vraiment euh mang koy dial dial wa waa Pikine. Mhm, dama len koy dial ndax fi la comme ni ko waxe parce que Pikine nag kilifa ngi fi. ci sa introduction. Mhm, fi nga ko waxe ci sa introduction. mom Pikine la de souche. fi le judo non judo fi ga mais fi la fi la gimmee fi la defee léppam. Mhm. sa vie d'adolescence et de jeune homme yëpp fii la. waaw à part que Gueule Tapée bi ma amee 4 ans la ko sama papa jox turandoom muy papa John Seck. papa John sec, waaw bu nekk un mhm. fa la defee moom sa vie de d' adolescence ben, mhm. jeune moom fii la à mhm. Pékin. waaw à jeune homme la. adolescence am voilà mu ngoog. mais ñu ñu gis relation yi nga amoon ak moom. moom. am fu la teg. jël kër gépp teg ko ci sa loxo. la. mu xëy génn àdduna uh-huh. taxawaay boobu fooraat trop uh-huh. Uh-huh. père li nga ñàkk rëy na lop laa ilaha illallah moom koy li ma ñàkk dañuy gëm yàlla rek xam naa ay jullit lañu jullit moom gëm rek ñu war ak nangu dogal loolu la def waaye ki nga xam ne moo la yor yor sa njaboot moom coon moom coon ma jox kër gii na ma dëkkal ak sa njaboot jël xaalis bari di chaque fin du mois ne ma sa dépense bu manqué. chaque fin du mois. chaque fin du mois mu jox xaalis bari ma def sama waaw. moom coon rek moo ko def ci famille bi. moom kese ko doon def moo ko gàddu woon sa yeneen rakk yi daan nañ barkeelu. daan nañu barkeelu di sant yàlla ñoom ñëpp wax dëgg yàlla. ku nekk ma pend macha allah. ñëpp dinañu barkeelu. Mhm. Kéba Kéba Ousmane Ousmane dañu baax famille ñoom ñëpp dañu barkeelu. Mhm. Mhm. parce que comme maay seen kilifa ñoom ñëpp di seen baay. ba pare ñu fonk la. waaw ñu fonk ma parce que cër bi maa ko moom. cër bi ñëpp lañu foogoon sax coon mooy taaw. mais coon du taaw man may taaw. waaw moom it mu mat li mu doon la sëkk nag. bu ñu waxee rek ma ne leen bàyyi leen ko. moom mën na jël taaw bi. parce que. lu ñu bare ñuy wax loolu. parce que sa OFT. Mm-hmm. Mm-hmm. sa taalibe moo tax ñu bari ñu foogoon ni coon mooy taaw mais du ñu déggaat beneen laminaar boo xam ni coon moo ko jur. Mm-hmm. ñu koy jaawaleeg laminaar yi du loolu moo tax laminaar boobu sa turandoo la. non non non laminaar Diop la tudd Tafsir Xayaar. mooy turandoom. laminaar Diop boobu moo bokk tur ak laminaar bi Ndeye Marie Gawlo jur. kon ñaari Lamine naar la ñu bokk benn turandoo muy Lamine Tafsir Xayaar muy waa ju baax moom it Tafsir Xayaar nit ku baax ku bëgg coon moo yóbbu sama yaay màkka Tafsir Xayaar moomu waaw moo yóbbu sama yaay yóbbu sa yaay màkk waaw que coon def ne lu ci bari xaalisu musique lu ci yóbbu sama yaay màkk waaw mais tey sa digganteeg coon ak àdduna ni ñu ko ñàkke góor gi xam nga ne jamono ji ñu bari ñu ngi koy waxtaane mu nekk ci ñoom dafa mel ne way deena non moom kay du ma ne sax way dee nag parce que ce trop dur parce que ñoom Youssou ngi fi ñu mën a way ñoom ñu baax la ñu Youssou dégg naa. mu fekk nga ci dara diggante Youssou ak Thione. waaw li ma lépp laa fekke kay. Issa dañu cee wax dara. waaw parce que ñoom ñaar nit ñi dañuy wax nii rek. mais ñoom ñaar dañoo bëggante. dañoo bëggante dañoo bëggante ñoom ñaar barke alxuraan dañoo bëggante ñoom ñaar nit ñi nag duñu bàyyi weer ci wenn fan. mais ñom ñaar ku ci nek sa morom fi ngi ko def ci sa xol loolu leer na parce que rek ba ma yuusu fekke morgu ba fekk na la morgu mom hmm mu and ak buuba ndour saint louis mané di men ñi mi andal staffam mara jeng di sama xarit di sama di sama di sama wolere bañu andé ñom ñoom fekk ma morgue ba yusu rongon yaa fi barke nga xamni ki amna lu ko metti tay

Mm, sa oyofte googu. moom moo waral ñu bari ñu defe ne coon moo la mag. maa ne ko na jël taaw bi parce que comme moom moo moom moo leen musicalement moom mooy seen chef mooy seen mag. nee naa ko na jël yëpp gàddu na na na épaulé xale yi rek. waaw mu mel ne loolu tamit moo dal. waali man ma effacé woo. mu mel ne tamit loolu moo dal waali bi daanaka ñi ko ci mag bari na. waaw lu koroog mi ngi feeñal rek naan Lamine suñu taaw a ngi nii. mu ngoog mu ngoog mais xëy na. Mm. oyof ak nangu gi mu nangu moo tax ñu jiital ko. dafa woyof rek. Mm-hmm. Wally xale bu baax xale boo xam ne bii euh, man dama koy sant di ko gërëm di ko ñaanal yàlla suñu borom su mu àgg ni yàlla na sut fa mu euh, yàlla na yàlla na ko sut fu mu fu war a jëm parce que kii àggagul de day door a commencé. moom Wally moom Wally àggagul day door a commencé waaw. kon béggal na ay baayam. as allah macha allah man mi dey ci man la jëkke ndax euh, ndeysaan mercredi mercredi ba le passé semaine bi papaam di gaañoo mercredi ba ñoo ànd ba dem këram ñu jóge fa dem kër papaam ma ñëw xool wax ak ki ba pare fekk mu door a jóge Dubaay dafa demoon Dubaay dafa demoon Dubaay fa ñëw yo xam naa mu yóbbul yaayam Sëri Caam mhm. maa ngi dégg mu naan ko jaaga euh, an ana ana góor gi mu ne ko mu ngi ci kaw loolu c'est le mercredi. ndeysaan mercredi. man ma xool ba yàgg ma ne ah ñu dara comme mu ngi ci kaw comme wàccul bàyyil ma dem ba beneen yoon quoi ndekete man su ma xamoon loolu dem seet sama rakk kon mu yëg ci kaw dem wax sama rakk. waaye mais xaw ma ko ndekete suñu gisee jeex na suñu wax jeex na waaw loolu yàlla loolu dogaloon. nga nga fekk soxna su baax soosu. ma fekk ko soxna soosu nga xam ne moo liggéeyal waal mhm. liggéeyal waali tey ji ba tey ñu mën a xam kuy waali ak doomam yëpp di tekki tey ji macha allah hmm. bëgguma lañ tatu ndax moom dafa liggéeyal doomam yi ndax bëgg Thione ba mu jeex takk xamul ku dul Thione Seck bëggul ku dul Thione Seck keneen ku dul Thione Seck Kine Diouf xamu la gëmu la hmm. lu mel ni mi daal wax dama ko daan dama ko daan sax na ko yow ndamoo ku dul Thione Seck mu ne ma maa tey mu ma neexee moom rek laa bëgg ci àdduna kon kooku tey soo amee ku mel ni waali da ko faa liggéey daa sëy mhm. daa sëy ba wàcc donc gatch ngaalaama jaaga danga koy gërëm di ko sant ci à travers émission bi parce que fi rek la mën a ci mom mënu maa wax fenen ci mom seen direct waaw seen direct waaw waaw donc je disais que bima bima bi may boobu après maag wal ñu ànd génn dem joxe suñu soxla mhm. maag sama dom mais sama dom avant lolu sama dom dafa ma taaj taaj papaam motax tax ma dara fim tolni ma taaj taaj papa ne ma ne ko papa lepp la war la won sama digeuntek sa digeuntek sa mak di sa kilifa muy ablay nar mi sam papa ablay nar hmm waccho nako bes ni ko tay mako gaddu kon bu papaam ñëwaatoon ci aduna du defarat togayam defar nako bu yag defar nako bu yag ci kanamam la defare bi muy dundu bi muy dundu xaru ba mu mu dor mu dor ma topoto dedet dedet mm. waaye daf may toppatoo bien avant bëgg na ma yërëm na ma xam na may kan te loolu c'est très important ci xale. mu xam kilifa bëgg mbokk nag. parce que bëgg mbokk parce que Wally boo waxee mu ne man social mooy sama lépp. gis nañ barki dem boo njaay mu dimbali ay nit ñu feebar. mais ci papaam duñ fi jóge ci papaam la ko askanu maareen. bi ñu yëgee lii parce que daan nañ dégg ay penc dëkk. mais dafa mm. ñëw dundal seen dëkk boobu.

ak lam fa def. am na clip boo xam ne man ak moom ak famille bi yëpp ñoo fa ànd dem defi ko. defi ko toog ci ëtt bi. toog ci ëtt bi toog ci penc mi. mu ngoog maag maag maag Ousmane ñuy damyee. ndeysaan damyee maag Ousmane la. ma pende toogee nee xarit Seck toog nee sama sœur. ñëpp toog famille bi macha allah. macha allah. keroog waa Maare ñëpp a kontaan parce que dañu xam ne lii xale bi def mosu fee am. muy culture originale bi. man mosu fa am. mosu fa am gis nga xale bi. non xale bi xale bi xoolal nañ ko bàyyi te xool ko rek. parce que Ndiago Héro nee na ma nit ku neex a la. non Ndiago Héro nee na nee na ma bu bu waali dencee fukk di koy bëgg seddale balaa balaa tàkkusaan. xam nga lu mu wax barki de moo Ndiaye bu ñu bàyyee Covid bi bu ñu bàyyee affaire yi. waaw ba ñépp di géwaat danaa respecté xaalis xam nga waxul tax mu wax loolu. Mhm. xaalis bi muy jël da ko moom xaalis pour moom. objet la da koy jële di ko joxe. Mhm. pour moom loolu la gëm. dencul dara dencul dara pour ëllëg. Mhm. dencul dara pour ëllëg lépp lu mu yor da koy joxe day joxe ba jeexal yow ne la ma xool sa poos loo yore nga jox ko mu maye ko. Mhm. moo tax seen xol fees ba ngeen bëgg sa rakk. Oh. ngeen defal ko ñaan kañ ngeen koy defal ñaan. dimanche bi incha allahu rabi dimanche bi la la lan la le 22 wala le 21 le

incha allah le 22 waaw ñu woo Pikine ñëpp ah, autorité yi ñaan autorité yi aussi ak kër Touba kër kër nañ gis nga jugement bi ko ñu defal ci porte parole bi à travers porte parole bi gis nga ko waxal hmm. te une semaine avant sa mort la hmm. nga rek am na baatin ci lu baax rek am solo lu baax am solo waaye ndokk ba nga dajanteeg yow Pikine ni mu foore boo xoolee tali bu bees bi mm. waa kër Serigne Babacar Sy kër Serigne Mansour euh, euh, maanaam ma ne tali Icotaf bi waa kër mm, Serigne Babacar mm. tali bu tali tali tali bu bees bi waa kër sëriñ Mbacke Pikine waa kër Serigne Touba yi euh, tali bu mag bi waa kër Cheikh na Cheikh Sat bi waa Limaamu Laay ridis defe naa ne ñun ñëpp buñ dajee ci ñaan gi dinañ gis leneen Cheikh Diombaye sax moo koy jàng bu soobee yàlla. soobee yàlla incha kon daal dimanche. ci kàttanu yàlla yow ak seen waa seen direct lépp dina leer. ñi nga xam ne yàlla danoo dogal ñu nekk bitim réew. di yóbbante sa njaal waa waa Europe. ñëpp ngi yóbbante waa Amérique waa États-Unis rawatina waa seen direct. kon góor gi ñu ngi kontaan bu baax ci yow. di di di dellu si nag ci waal yi euh, di wax ci sama rakk yi aussi Mapenda Mapenda kenn mënu ko fay Mapenda nit ku baax la. samara ko bu baax ñom ñepp baax Ousmane sek keba ñom dal man dal man dal dama dama dama sante yalla bima me rak yu mel nonu mhm. waaw ki di Assane asan kon taxna joyoto dara Assane Ndiaye non joyuma dara Assane Ndiaye aussi mu ngi fi kenn gënu ko Landu mom Ndiaye Landu mhm. rek la koy wax du asan ko wax sax Assane mhm. Landu rek lay wax mom xam na ne man bu ma Landu rek man mako wax ndax Assane suñu doomu ndey la sama rakk yaay moko jur ah bokkoo leen ndaay ak baay. non Assane yaayam Nogoy Dieng lu tudd man sama yaay Nogoy Ngom. yaayam Nogoy Dieng moo ñu boot ñun muy man ak coon ñu ñëpp parce que sama kër papa la nekkoon sama papa moo ko maye. waaw sama papa ko maye. waaw donc euh, muy suñu yaay moom lañ di dese comme yaay. di ñaan yàlla guddal fanam moom it yàlla na yàlla guddal fanam di guddal fanam samay rakk ñoom Ruba Sey ñoom ñoom Kumba Taal. Euh, ñoom Seydina ñoom Doudou ah ñoom ñëpp daay boo limee da ngay juum. jërëjëf mais kontaan nañ ci yaay Nogoy Jang yàlla na yàlla guddal fanam moom it. waaw yàlla na yàlla guddal fanam. waaw di di di di di gërëm sama rakk yi Khady sekk moo ci première. Ndeye Maguette Nafi mbay yaa may dégg Mbayang ñoom ñëpp samay rakk lañu Anta Jama sama doom bàyyi ah euh, Ndeye Fama ah, Asubuna ah, ah Aminta Ndiaye. yaa su ma limee damay juum. waaw ñu woo ñëpp dimanche rek bu soobee yàlla dimanche kontaan naa Aziz. yow it yow maa ngi lay gërëm di sant. di sant seen seen direct. Mhm. yàlla na yàlla na site bi. dem ba nekk télévision. Mhm. internationale waxuma nationale mais international jërëjëf yàlla na ko def. kontaan naa trop. ci yéen naa ne. Euh, lii mooy seen seen seen seen seen seen seen liggéey lii rek ngeen di wut pour mën a valoriser mhm. yenn yenn information yi mhm. valoriser yenn type de nit ñi vraiment kontaan nañu man de je suis vraiment Aziz. ci yow jërëjëf xam naa ne dimanche dinañ ñëwaat comme nii. incha allah dimanche moom waaw suñu PDG mhm. mhm. mi ngi lay jaale tamit. muy muy suñu kilifa. ñun ñëpp mu ngi lay jaale di ñun ñu nekk suñu waa direct yëpp. ñu ngi fa seen direct ñu ngi lay jaale. Ah, ah. di ñaan yàlla daal suñu bàyyi coon sekk yàlla na xippee àjjana. amiin jërëjëf papa ba dimanche jërëjëf. ba dimanche mais eh, damay ci yokk rek. Euh, di gërëm sama xarit bi nga jëm ni yees yees say dafa sonn ci man. Mhm. yees dafa sonn ci man yees mhm. sonn na lool ci man mhm. jàppale ma partout di sama doomu ndey di sama xarit mooy grand sëriñ de Pikine waaw mooy grand sëriñ de Pikine nag mhm. waaw ndax yu baax yooyu muy sol sa daf ma ciy jox moom grand sëriñ mbarke sëriñ Touba waaw kon kon il ñu seeti ko ñu ngi koy seeti il faut seeti ko dem seeti yees